man at mu jot dama doon ñëw màggal si waa mais ren dafa nekk màggal bu particulier ndax man veyu màggal laa doon ñëw ci guddi gi mais démb yàlla dafa def suturaal ñu ci kattanam ñu bokk ci délégation bi nga xam ne sëriñ Babacar Sy Mansour daf ko yebale woon ci Tivaouane man daan naa màggal si mais màggal boo xam dafa ànd ak yeble ànd ak sa sëriñ yónniwaale la nga bokk ci ña mu yónni man dama ci am ndam ñaari yoon am ci bénéfice ñaari yoon ndax moo di jug naa sàkku si nganeel bi di des maa ngi dox mission sama sëriñ kon yaakaar naa ni man bokk naa ci ñi ëpp ndam ñi ëpp bénéfice ci màggal gi ñu koy sant yàlla sëñ Babacar daf ñu daf ñu daf ñu jàngal yoon rek ndax tey lu toll ni xalif général des Tidianes jiite li mu jiite des million de personnes mu gis ni mbokkam mbokk sëriñam mbokku deretam mbokku lislaamam xewla na bis bu toll ni 18 safar mu jël délégation boo xam ni sëriñ Sidi Ahmed si bu sëriñ Abdoul Aziz si Dabaax moo ko jiite ànd ak ñoom sëriñ Habib bu sëriñ Babacar ñoom Pape Diop ànd ak sëriñ Sidi Ahmed bu sama bu turandoo sama sëriñ sëriñ Abdoul Aziz Al Amin ak mbooleem ñoomu àndal sama ñoom rak Baye ndjay ba ci ñun ñu xeebu ñi ñu ànd ak ñoom ci délégation bi ñëw fekk si mbokam mi nga xam ne ku ne xam na ni sëriñ Muntaxa nitu yàlla la ku ne xam na ni sëriñ Muntaxa borom leer la ku ne xam na ni sëriñ Muntaxa boroom cër la mu yëkkati teraanga yooyu ñëw jébbal ko ay kàddu yi nga xam ne mooy relation fraternelle bi nga xam ne am na ci diggante ñaari kër yi nga xam ne ay mbokk lañ ay njaboot lañ boole ci teg ci teraanga jël lu mat fukki nag jël lu mat deux cent sacs de riz ak cinquante cartons diwlin teg ci leneen jàppale leen ko ci li nga xam ne ni mooy 18 safar bi kon ñun ñoo war a sant yàlla sant yàlla bi nga xam ne ñun taalibe yu ndaw yi nga xam ne yu xeebu lañ ñu ci jéem di ci def ngir ñaari kër yi ñëpp xam ne ñoo benn ñoo bokk ndey baay bu ñu demee ba gis suñu ay sëriñ nekk ci loolu te di ko def kon ñun nañu sant yàlla bu baax di xam ni ñun taalibe yi ñun ndaw ñi ñun sénégalais ñun àdduna nañu jàng ci diggante li nga xam ne ñu tey moom la ñu Tiwaawan ak Tuubaa di jàngal ndax gëm naa ni li ñu teg ak lii ñu ñuy wan mooy lu rafet loo xam ne war nañ ko doxee war nañ ko doxal di ci wax di ci def ba ñëpp xam ni Sénégal yàlla may nañu ñaari kilifa wala ñaari kër yoo xam ne ni ay këru diine lañ te ñoo bokk benn jëmuwaay muy Seydina Mohamed yal nañu yàlla sàmmal kóllëre googu te yàlla nañu yàlla sàmmal teraanga jooju nga xam ne suñu ñaari mag yi ñu ngi koy doxal.